kon ñoom état bi si boppam ñoo jalgati droit citoyen yi. dëgg la loolu mooy dëgg. ñun nag depuis soo ba léegi ñu ngi supporter oustaz. Mhm. xam nga lu ñu koy supporter parce que dañu xam ne dañoo jalgati ay droit am et que xamul sax ay droit am mais d'accord ñu si jëng. parce que man xawmoon sax lan mooy jëng. man xaw ma ko man def nañ ma ko. xaw ma ko def nañ ma ko de. woon xalaat que ne dinañ ne dañuy yar xalé chaîné ko. non ñun def nañ ñu ko lolu gaay Afrique dañu xam nga Afrique mbayang dañu sadik xam nga africain dafa sadik gis nga fi xaj sax kenn du la permettre nga chaîner ko di notre manière xaj sax xaj xaj sax boko ko ben manière fi abuse d'animal lay animal abuse la xaj xaj la la wax waxuma la nit mais euh, Ousmane voilà ah, voilà xaj waxatuma laax doomu aadama doomu aadama xale boo xamante ne fi chaîné doomu aadama ñu chaîné sa waa kër yëpp yóbbu la rey la fii kenn du chaîné nit yooyu duñ ko nangu ya. dafa am droit pour am amour maternel mooy bëtu yaay bi ko di ah. xool ci am droit am droit amour yaa dañ ko ko paternel aussi amour paternel amour paternel papam wàcc rek wala ñëw rek yëkkati ko. foon ko fii foon ko fii dañ ko ko xañ. man moom laay def soxna si maa ngi lay jéggalu noonu laay def man. chaque jour quand je rentre chez moi c'est ce voilà léegi nag bu fekkee ne xale bi dañ ko xañ loolu yëpp ba pare jox ko koo xamante ne dañ koy jàng daf koy jàngal mu jox ko koo xamante ne daf koy éduquer yaa ngi dégg kooku lu mu ko yërëm rek des na man mënuma comprendre. man mënuma comprendre xale bi am ba dix ans te mënul sang boppam te ndox ñàkkul loolu problème éducation la man mënuma comprendre xale bi am dix ans te mënul fóot yéreem sol lu set loolu problème éducation la jàng alxuraan ba mu ñuy wax ne il faut nga tilim wala il faut nga toog ci suuf wala il faut nga sol def tànki neen il faut nga wër pendant dox dox ay kilomètres jàng alxuraan boobu lu tax loolu am au Sénégal kese lu tax amul ci yeneen gox yi yeneen pays yi mais pays arabe yi dañuy jàng alxuraan ba wàcc alxuraan lu tax amu fa lu tax loolu am Sénégal kese man je crois que lii c'est euh, li si fii nii ah la ñuy doxee la ñuy doxee ah ñu jéem a régler problème affaire taalibe yooyu. parce que ñëpp sax duñu taalibe am na ñoo xamante sax jóge e, ni ñu ko waxee jógeew ñu Sénégal duñ de ay sénégalais dañu ñëw sarax aussi yaa ngi dégg c'est des gens qui sont des enfants qui sont exploités dégg nga si mais euh, soutenir soutenir euh, comment dire oustas yi tey journée bi yëpp dama leen soutenir mais soutenir leen ne veut pas que ne veut pas dire que man dama soutenir. le fait ko ñuy jëng ay xale wala ñu leen di dóor wala ñu leen di bàyyi ñu tilim wala ñu leen di bàyyi ñuy dox ay kilomètres pour chercher à manger l'état l'état est fautif parce que xale bi bu fekkee ne am na six ans dañ ko war a dugal école c'est obligatoire gis nga meew yooyu ñu joxe école yooyu c'est obligatoire dafa am le minimum boo xamante ne droit xale bi la te droit yooyu dañ ko jalgati kon amuñu kenn ku ñu yóbbu seen tribunal yi di leen tëj alors que ñoom seen bopp ñoo jalgati dès le début tout léegi économiquement parlant économiquement parlant xale bi bu fekkee ne dañ ko daf dafa jàng alxuraan rek léegi mais xale bi est-ce que moom aussi warul jàng métier lu tax après commerçant lay nekk loolu moo tax Sénégal et quatre-vingt-dix pour cent sénégalais yi bëgg nekk commerçant bu ñëpp jaayee kuy jënd. en tout cas ah, ah, ah. nekk donc dañoo war a nekk. ay nit yoo xamante ne dañu war a jàngi ni ci après ça donc euh, état bi si boppam euh, Ousmane Sonko waxoon na fi ne que ne euh, il faut que affaire diine bi ñu utal leen budget sëriñ daara yi ñu utal leen budget daara bu nekk ñu ñëw xool ko ndax am na norme boo xamante ne war nañ ko teg chaque daara nekk ci norme boobu seriñ daara yi war nañ leen subventionné di leen jox xaalis problème bi war nañ leen jox dund problème bi mooy comme ñun suñu gouvernement ils sont occupés à voler tout l'argent pour le mettre dans leurs propres poches. Ah, est-ce que est-ce que am non non politiciens qui la ñuy jël. amuñu ku ñu voilà politiciens qui la ñuy jël ku nekk mais yow yaa ngi yaa nga bu euh, commande yi Kanté boo xamante ne barka démb lu wax. jox naa la cinq cent mille waaw. quatre vingt ah, cellules. ah ñaari saaku ceeb ah xoolal ah ah

fu mu dugg war nga ko xam buy génn war nga ko xam nu muy def war nga ko xam parce que tu es responsable lu ko dal lañ laaj yow foo nekkoon man à l'école sa doom am 15 ans bu fa daanoo feebar dañ lay wax ñëwal nga demandé léegi permission fekk fa xale bi léegi récupérer ko mais duñ ko wax ne demal ñibbi de du am parce que cet enfant là est protégé lan la ñu ñoom lan la ñu gënee suñu ay doom. lu tax ñun lu mel nii si ñun rek lay dal sëriñ daara yi nañu comprendre que ne ñun euh, contre ñu leen suñu ay frère lañ mais si siècle bi ñu toll ñoom lu ñu bëgg di wax ne que ne euh, ñom si loolu lañ leen yaré seen maam si loolu lañ maamaati maam si loolu lañ leen mais loolu mënutul nekk gis nga loi bi leen teunk ñom tay ji ni sëriñ bi waxna na tay ji ni mu dembe ni mais buñu loi bi nga xamantene mo teunk tënk sëriñ daara bi tak xale bi ba mu am flagrant délit kon dina yag ci kasso bi de sëñ Ousmane. waaw. heureusement sëñ bi génn wax. ah mais sëñ bi wax heureusement que ci fi ñu xam ñu xam que ne lolu dañ ko wara bayyi amuñu ci benn droit sa doom ba nga jur am lo droit diko jeng jëng. waxatuma la do jaamur sa droit diko jeng waaw warut a doom boo xamante ne dañ la ko jox nga war ko sàmm teg ko si yoon ba mu màgg donc maa ngi jéggalu nag si xaw naa xaw na gudd amul problème euh, maa ngi jéggalu mais maa ngi bëggoon wax aussi sénégale yi sénégale yi nañuy xool sénégalais yi du doom boo jur rek mooy sa doom sénégalais yi dañuy xool dangay defar sa doom ba mu baax nga dugal sa oto romb ay xale yoo xamante ñu ngi si mbedd mi def tànk nen mulliw ñu sol yere yu xotte ko ya nga protéger say dom ba mu baax. nga jox sa dom xaaliss mu may leen. nga daal di génne nga nga génne juróom jox leen lolu sénégalais yépp ci wara taxaw pour lolu génn suñu réew mom affaire bobu ñaawna image bu vraiment dégueulasse mu ngi non xam nga ñun nu ñuy doxé fi pour te dire soxna si nga xol évolu évolution eh, fi évolution bi ni mu différent ak suñu dëkk gis nga ñun ci dëkk yi par exemple. xalé déjà amul droit nek ci mbéd lolu xalé mineur amul droit déjà nek ci Si bo êtes mineur mëno nek ci mbéd par exemple à 11 ans 12 ans c'est pas permis ici c'est pas autorisé man ta nek non mais gis nga non dégo mané la tank tank mbag mbag ba mo am 18 ans voilà man ta nek ah effectivement gis nga bu waree am fu mu dem diggante boobu ba mu war 18 bu ñu ko waree photo dañ lay bind nga signé. kenn amul fura photo ko Sénégal da ngay gis xale boo xamante ne dañ koy génnee filmer ko mu taasu taasu taasu ñu def ko ci réseaux sociaux yi. Sénégalais yi ci boppam ñoom seen bopp ñoo bëgg tamit lu yomb nañu respecté xale yi réew bu ñu respecté wul gone yi respecté wu ñu jigéen ñi réew mi du dem barke dafa fa wàcc mënul ne. na ñu respecté xale yi respecté jigéen ñi parce que gis nga. da si bëri góor ñoo xamante ne buñ la fasee sax dañuy fase waale doom ya. waaw doom ba dem kër yaay ji yaay kër ga xat nga tëdd sa ginnaaw yaay doom ba tëdd ci suuf moom mu takk beneen ci jabar remplacé la nan kële déggalu ma mais da nga fase yaay ba fase waale doom bi mais loolu dafa bëri. effectivement nañu téye xale yi. nañuy muñ ndax xale yi muy góor ak jigéen nañuy muñ ndax xale yi nañu téye xale yi respecté xale yi di leen xool bët xale da nga koy xool ci bëtu yërmande parce que dañ ne l'enfant c'est un ange imagine ñu ne la l'enfant c'est un ange yow nga jéng ko nga dem defarlu ah te gis nga li ma wax ni bu du woon sëriñ bee wax sëñ oustaz daara bi dina am problème parce que dafa dem defarlu du loo xamante ne c'est occasionnellement dafa dem defarlu dem defar lu jéngukaay eh, ay chaîne hmm? am néeg ba ñuy chaîner après mu chaîner imaginal xale boo xam te da ngay ànd ak sa jéng di daw di daw ba ci beneen village ah ñu la fay photo ak di la filmer nañu def attention parce que dañu ne hmm, la loi nul nul hein, nul n'est censé ignorer la loi amul benn nit boo xamante ne nga naan man xaw ma woon bu loi bi jotee rek dañ la siy àtte te beneen affaire bu gën a grave bu ma la ko waxee tey doo ko gëm. xale boobu dañ ko war a jël tey toppatoo ko def ko en sécurité mais gis nga xale boobu fii lay jaar traumatisé bu ñu fexee ba doomu aadama yi xàmmee ko sax fu mu jublu ñu ne xale bii moo ah. xale bii moo yàqoon alxuraan xale bi te xale xamul dara ah, ah, l'enfant est innocent xale bii dañ ko war a jël déjà protégé ko

xamul sax ne li mu def maanaam mënoon na cee indil nit problème moom xamu ko moom bi muy def loolu. moom ah. daw na rek ndeysaan. Ah. mais xalaatul woon ne lii yëpp dina ci juddu réew yëpp yëngatu ndax xale boobu vraiment sister merci encore ñu ngi lay jaajëfal ci sa intervention. maa ngi ngi remercier ñëpp. merci jàmm ma merci vraiment. Euh, yéen a ngi dégg on a des personnes extraordinaire dans ces réseaux yoo xam ne dañuy wax li nga xam ne moom moo war. parce que comme niñ koy j'avais bien dit que affaire débat Serigne bi ak xale bi du doon loo xam débattre parce que sait la vérité parce que nous toujours di déconcentré ou di jóge ci li nga xam réalité Sénégal voilà jël ko euh, euh, Ousmane live de participer. waaw dama bëgg a participer waaw. waa ñëwal ñu ngi lay déglu bismillah. waa parce que dama dégg Adja boobu. waaw wax di tëkkale njàngam alxuraanum Sénégal ak xawma saoudi ak dëkku arab yi. déedéet mënul nekk du benn. non mais ne bala ngaa tëkkale dara da ngay xam la ko waral ba pare. dëgg la est-ce que dëkk arab yooyu muy tudd noonu am na ci dëkk bu ci am loi laïcité. dëgg la vas-y vas ndax am na ci dëkk bu ci am loi laïcité. wóoruma. wóoruma vraiment amu ci. voilà amu ci. amul benn dëkk arabe bu am loi laïcité. kon ñoom seen budget am na droit financé ci école coranique. dëgg la dëgg la. Sénégal dafa am loi euh, laïcité budget Sénégal. Ah. état bi day soog mais amul droit financé ci euh, kii euh, kii daara yi. la. mbir bu xewee da ko koy boo boo ciy waxee da nga ciy am noo ci waxee. Mm-hmm. comme jéngi bee kii bi. waaw kan moo mas a gis ñu jàpp ab agresseur Sénégal foto ko ñëpp di ko gis xale bi nit ñi a nañ koo bañ a xam kan la. dëgg la loolu mooy dëgg. loolu mooy dëgg. <laughs> voilà kon mbir yi buñ ko tëb te man dafa am lu am importance loo xam ne nit ñi seetloo ñu. njàngam alxuraan dafa am solo ci nit. bu baax a baax man dama jàng alxuraan. moo tax mu def ci man yar. am naa dóor nañ ma jubbanti nañ am lu muy def ci nit loo xam ne. waaw nit ñi gisaguñu ko. loolu la di nga ko jàng alxuraan lu mu ndaw ndaw ndaw. loo leen di defandoo ci kaw suuf moo la ciy man mën naa la cee jox ñaari exemple day yaatal xel. moo wax la ci benn exemple. waaw kan moo jël bu dee ci sport kan moo fi jël baloo door deux fois Sénégal El Hadji Diouf. dëgg la. mas am na ci équipe nationale ku mas a football ku gën a jàng alxuraan El Hadji Diouf. ah déet wóoruma comme ni nga wax amu ci dëgg la. moo xam la ci ren Sénégal ñi ci président yi fi nekk. Mhm. buñ ciy wax ku ci ëpp tuuti xam-xam alxuraan kan la du Ablaye Wade. dëgg la wóoruma wóoruma kon de. ah bu wóor ci ñun lim dégg kon kon de sëñ bi kon dee naa ne. xam na ne xam ne. sëñ bi juuma ah. doguma la de waaye kon dee nañu de parce que Ablaye Wade man déglu naa ko keroog muy jàng ah. jàngam soriwul ci alxuraan. non loolu dafa. ku la ku baax la nag ku baax dafa naax léegi. Ah. ku ne xam ne Ablaye Wade am am na jàng na tuuti alxuraan. man defe naa Idi est-ce que Idi gënu koo jàng parce que. Idi non non Idi Idi nekkagul président. ah nekk dafa am lu ma lay expliquer pour nga xam. Ousmane Sonko ak Idi ñoo gën a jàng waaw. ku am tuuti alxuraan ci dënnam. waaw ak ku ko amul. Idi ak Sonko Abdou Diouf mosuma koo dégg mu wax ba tudd ci alxuraan dara. xamul dara xamul ci dara Macky Sall mi ku xam ne da koy jaxas. dëgg la pourtant ñëpp d'accord na ne nekk moom ci alxuraan dafa mooy différence am ñeneen ñi mu nekk doon. koy gis. Mm-hmm. kon mbir yi buñ ko tëb tëb tëb njàng alxuraan dafa am solo. torop mais coow li mooy lan mooy laïcité boobu nga xam ne. parce que c'est pas normal kiy jàng français nga koy jëndal bi kaye di fay maître bi koy jàngal koy jàngale rek nga koy discriminer. loolu warul normal. loolu mooy coow jàng yëpp la la ñuy def loolu mooy coow li. Amérique école yëpp lay financer mooy yoon du affaire u jéng mhm. ay affaire u lii mais lan moo waral kiy jàng français nga koy jëndal big kaye di fay ki koy jàngal ba parfois sax nga leen di jox ay meew yi naan te keneen kay jàngale rek nga koy discriminer. dëgg la. loolu mënut a nekk mënul mën a nekk loolu mooy coow li yeneen yëpp du ci coow li ay da koy jéng ak ay bu fekkoon foofu dañ koo miire di ko tëj di ko comme nii kon loolu du ci am mhm. kenn miiréwu ko dëgg la te pourtant école yi nekk Dakar dañ koy miire parfois sax am na ci école yoo xam ne day am gardien xale mënta génn daw dëgg la loolu voilà kon nañu waxante dëgg rek dëgg ji mooy lépp na delluwaat ci état bi ñu dindi loi bi nga xam ne mooy discriminer ñeen ñi dëgg la loolu rek la du affaire jéng ak donga daara ak yalwaan ak yooyu yëpp lu loolu li kii mooy ki nekk ci école bi li mu war a am ki nekk ci daara da koo war a am. léegi ma laaj la ma laaj la beneen laaj aussi comme yàlla def na yaa ngi fi dafa mel ni comme ni ni ñuy waxtaanee nii dafa mel ni am na am nga xam-xam vraiment ci wàllu diine bi du waaraate nag. mais ma laaj la dara rek tellement xam-xam. non mais garaawul analyse. waaw mais dama lay laaj léegi analyse bi yow naka nga gisee. ay capitaine armée francais ak ay généraux armée français dugg ci dëkk bu mel ni Touba bu sell. dugg ba ci néegu xalif général bi. loolu kañ la. ah mais ci màggal gi passé indiwuñu ko fa. non loolu man sa norme pour maanaam ab général français ñëw siyaare Sëñ Muntaxa wala yooyu. waaw. loolu man jàppewuma ko problème. ah mais parce que mais yow woolu nga ñi nga xam ne tey. ñu ñu teg ci muumu jaam at yi yëpp ñu ngi bëgg a xool suñu ruq yi ñu ngi bëgg a gis suñu ay secret ñu ngi dem xooli suñu ay kilifa est-ce que xam nga ne. France loolu espionnage loolu du espionnage. dinaa la espionnage mais espionnage boobu am na bu ko gën a doy waar. waaw ban la. tay jii ñi ngay gis ñuy ñëw parfois nga dégg kuy jàng xasa yi mu jaaxal nit ñi. waaw ne peut-être day yi na na mais kan moo mën a que ne kooku nekkul agent spécial waaw voilà mais mais par exemple comme ma jox la euh, euh, exemple d'accord naa mais tey par exemple il n'est pas gradé et connu. mais tey nit koo xam ne général parce que man xam naa man dama nekk ci réewu tubaab te xam naa ne général fii ci te yaakaar naa fi ma nekk lépp luy <laughs> yaakaar naa luy à part États-Unis FBI li muy li garaaw lépp MI5 ko gën a garaaw dëgg la dëgg la loolu mooy dëgg loolu xam naa affaire secret yooyu xam naa ko bu baax a baax mais bu ko ci kaaw sëñ Mourtala Muntaxa tey ji ab généralu français ñëw ziyaare si ko wala président français man xam nga li ma gën a garaawal ci ñoom. pas ñoom ñu ñëw ziare xam nga lu ma gën a garaawal. waaw ñu déglu seen i wax. comme tey jii nga dem France président France naa la lislaam li ci ni ñu ko yoonu murid di doxe bu ñëpp mel ni noonu man gëwuma loolu. voilà man wax jooju laa gën a bañ sax tey moom mu ñëw siyaare ci sëñ Mountakha parce que tey jii mënu na tey euh, l'islam ni ko yoonu ni murid di defee bu ñëpp defee noonu baax mel na mi nga lay xaajale ñeneen. man wax laa gën a bañ sax xam nga man lu tax wóolu xam nga man lu tax wóoluwuma leen. waaw mi ngi mel ni yow tey sama diggante ak yow. nga nga yor njaboot man ma yor njaboot. waaw ñu bokk ñu bokk bitik wala ñu bokk business ñu bokk dara loo xam ne mm-hmm. sama intérêt ngi ci sa intérêt ngi ci. waaw mais vraiment man may sénégalais Sénégal lañ ko yor man may sénégalais yow ngay ay haïtien. mais mhm. maanaam intérêt Sénégal bi la ñu war sàmm ëllëg rek man ma jékki-jékki man ne la sëñ bi nga ne ma waaw ma ne la lii de dama koy jël xëcc ko indi ko pour njëriñ Sénégal njëriñoo ko est-ce que yaakaaroo ne yow bu fekkee xam nga sama ay secret yëpp di nga jéem a pour xeex ak man pour sàmm sa intérêt. noo xam naa loolu xam naa lu ngay wax ni comprendre naa bu man yu mel noonu yow li ngay ragal mais man tamit dama gis ne depuis histoire ba léegi waaw yàgg na gouverneur wala képp ku ñoome Sénégal ngay faral di seeti xalifa loolu yàgg waaw mais man tubaab yi loolu moom bañu ma ko mais tubaab yi moom comme généraux armée ak capitaine yi moom ak colonel yi laa wax parce que man maa ngi rappelé am na benn non bii mooy première fois de bii mooy première fois généraux am na gis nga Alaaji bi mu fiy nekk waaw armée français bi ñëw na di ko ziare si ok jour boobu bi mu nee tëll gis yen ñu soo taxaw nii mu ne ñii ñana ñu ne ko armée français mu ne man ca taalibe laa jëm ca taalibe laa jëm dëgg la dëgg la loolu la di tourné wuti ci ci base bi ci taalib ci kii bi mooy base bi daan nekk foofu. mu ne man ci taalib yàlla jëm. exactement xam nga loolu am na lu mu firndeel loolu ñoom ñi ñëw foofu di siyaare. waaw mais wóolu man mais man pour man ñi gën a ñi gën a jar a wóoloo diggu mooy ñi nekk yow ba pare di la wax loo xam ne doxew ñu noonu man tey gëmuma tey armée français ak ñi nekk ci état bi nii tànk que soppi ñu ni ñuy doxale man gëm naa ne benn la amul différence parce que ñu ma sëriñ si bokkuñu fuñ jëm benn lañu bokkuñu fuñ jëm benn bokkuñu fuñ jëm tey Macky Sall ak gouvernement bi ak ñi mu àndal yëpp tant que sensé ñu ni ñuy doxee parce que tey jii en réalité ku ne xam ne ne réew mi ni mu yëngoo nii bu fekkoon euh, démocratie bi commencé na ci parti yi Macky Sall du Sénégalais ñoo fiy jëlee waa parti ñu nan ko démal demal waat keneen tek ko fa. parce que xamné na ne affaire yi mi ngi koy ëpp doole. mais démocratie bi fofu la tay ji jii Macky Sall waa Sénégal waruñu faa jëlee. mais comme parti amul démocratie ak constitution bi ni muy doxee su fi président bi jógee président assemblée diko remplacer fofu le erreur bu mag bi gëna nekk. mais tay bu fekkon ci parti ñu koy remplacer heure yi dina gis wa parti taxaw ne ko carrément yëf yi fi mu toll mi ngi ëppi doole léegi demal ñu jëlaat ci kenn ci ñoom teg ko mu jëlaat weneen yoon doxale effectivement mais problème bi dafa dafa bëri compliqué trop sax dafa bëri compliqué neexul lijjanti tey jii constitution bi ni muy ni mu ni ko rëddee dafa compliqué président assemblée nationale man ngeen a bañ a bokk parti léegi ñu ne la tey yow nga yaakaar ne tey jii bu fekkoon loi bi mooy pré bu fi président bi fi nekk bu fiy jógee keneen di fi remplacer nga yaakaar kon Macky Sall ñoñom ba léegi waxuñu ne ko nga dem dëgg la loolu mooy dëgg mais bu ñu nga dem Moustapha Niasse fi ne est ce que ñoom di wax loolu duñ ko mën a wax duñ ko nangu mais bu que non la loi bi de yow mi sa parti gagné vous faites dem nga ba nit ñi peut-être am yenn xolé ñu lay dem keneen ci yow remplacer la ci biir parti bi kon ñoo jëlé ñoo mais ni ko pas mo doy dëgg la comme vous fi président assemblée rek mo lay remplacer man na am yow parti kenn du ko def. du kenn du ko kenn du fi jëlee. parce que boo xoolee fi Angleterre ñaata ministre lañ fi changé depuis 1997 euh, ak léegi. yi fi élection jëlee bu mege matee benn ñaar la ñeneen ñi def si waa parti leen leen dem leen seen yoon waa bëgg dëkk bi bëggatul leen. dëgg la toolu élection jëlee ko fi. Euh, euh, David Cameron élection jëlee ko fi. Euh, Theresa May élection jëlee ko fi. ñoo ñëpp dañu dem ba gis ne waa dëkk bi ñu ngi commencé di leen saboté di leen kii parti bi ne la carrément nit ñi sawar eh, jëlal seen bagage nga dem. loolu mooy dëgg. mais Sénégal amul doxalin bu mel noonu mais Adja boobu ne ko bu demaatee mu xoolaat dëkki naar yi muy kali kii seeni jàngat ak Sénégal mu xoolaat. xam nga loolu. li moom defe naa moom comparé wul sax mënul comparé dëkku naar ak. Sénégal non dama dégg mu ne. dafay dégg ñu ne dëkk arab yi dañuy jàngale alxuraan ba mokkal ba pare te duñ jéeg ah, duñ ji mais dafa war a dem ci dëkk arab yi xool ne loi bi am Sénégal nga xam ne moo tënk état bi pour mu financer daara yi amul ci dëkk yu muy wax dëkk yooyu seeni budget dafay génn xaalis di ko financer ci école yëpp muy coranique muy catholique ak yëpp dëgg la mais ñun amuñu système boobu système bii benn faar rek lay qualifié mooy ñi nga xam ne france la ñuy jàngal yu ak yu demee noonu ñooñu rek lay financé mais du financé ndonga daara du financé sëriñu daara mas nga gis bi du tabax daara ba tabax la état bi tabax la sa waay ci réew moo xam ne quatre-vingt-quinze pour cent te mënuñu ne état bi moo mu tabax fii université amul ci benn daara bu ne mas na koo tabax waaw léegi léegi sa xalaat léegi sa xalaat ci courant bi parce que tey euh, hmm. yokk nañ man courant bi waaw yàqu yokk courant bi waaw man loolu bu ma waxee dëkk man dafa am yoo xam ne il faut que nit ñu xoole ko beneen affaire hmm. courant muy courant muy ndox muy leneen définitivement dafay yokk. te mënu ci dara. waaw parce que Sénégal contrôlé wu ko. waaw mais xam nga fan la problème bi nekk. Mm-hmm. mooy ñu créer loo xam ne bu yokkee nit ñi di am lu ñuy am di ko fay. mais yokk moom mënut a waaw mais mais mais quand même. quand même nañu d'accord mën na yu ëpp comme comme mais moom xalaat bi day ak ans li ngay jënd koy même prix mais ma wax la ñun dëkk yow ah. Ah, déjà nga ne ci dëkk tubaab nga ne xam nga dëkk tubaab ni muy doxee mi ngi mel ni tey Amérique dañu yokk minimum wage maanaam fayu voilà lay wax voilà da ngay yokk fay bi boo yokkee salaire yi boo yokkee salaire yi nga bàyyi nit ñi yokk prix yi nga yokk courant munu lo ne borom keur damay wàññi loyer yi après nga yokk courant yi après nga lolu lolu mengo wul lolu moy manam da nga bëgg trop toskari do doomu aadama rek ci question bi moy bu fekke créé wo nit ñi fiñ koy fayé voilà yokk gi mën ta ñak état bu la fi digné la du yokk waxul lu am voilà parce que lu pétrole bi fan koy jaay du Sénégal deug la te pétrole bi ci la lepp dépendre lolu moy deug mais nag yow daay góorgóorlu créer loo xam ne su su su yokkee nit ñi dinañ am luñ ko fayee. ok duñ ko sax sentir tellement. voilà mais tey jii kaas naan tey ceeb du yokk diwlin du yokk ku la ko wax mënul wax lu nekk mënul prix mënul nekk benn place fii ak deux ans man maa ngi rappelé bi may ñëw fii ñun doon jëndee mayonnaise thirty three pii lañ koy jëndee léegi ñaata lay jar one pound thirty kon xam nga ne loolu kenn wax ko mais taxul ñu ñi sentir ko parce que nit ñaa ngi am i moyen koy fayee. waaw parce que dañuy yokk bi. waaw nit ñaa ngi moyen ñu koy fayee kon ay pétrole ak eh, kii courant ndox lépp dina yokk booy boo nit ñi préparé ko lan mooy problème bi nag mooy état bi dafa créé wu tous te affaire bi di dem yoonam. liggéey amul payeur yi yokkul ñeen ñi ñu ngi leen a dàq yenn entreprise yaa ngi teg il faut mu gën a metti mais yokk gi moom man ki yaakaar naa kenn mun a téye ba affaire yi du jóg moom.

Euh, euh, nit ku bëgg réewam donc li mu wax mu am solo lool maanaam yokkum courant bi masiba naaru laay la bu fekkee pays yi yokkuwul koom-koomu Sénégal gi partagé wuñ ko normalement payum courant gi masiba naaru laay la mais yokk moom mënta ñàkk ala kulli alin mais yokk mënta nekk bu fekkee doomu aadama yi mënuñoo liggéey pour fay ko xam nga tey nit ku amul cinquante mille francs nga ne ko sa sa courant quarante mille la ba léegi amul cinquante mille franc nga yeewaat suba ne ko sa courant cent mille la kooku danga ko bëgg a toroxal te doomu aadama bu nit ñëwee pour toroxal la war nga ko mën a toroxal yow ci sa bopp bul ko bàyyi mu lay toroxal Cheikh Diaw man nga maa woo ci messenger bi Ousmane Tounkara man nga dem sama Facebook nga woo ma ci messenger bi ma dugal la parce que yaa ngi ne ma dugal la donc maa ngi dugal nii suñu sœur bi ma woo sànq ba léegi mi ngi woote suñu sœur bi sank ba légui mi ngi woté dugaluma ko donc ma dugal ko comme ça mu intervenir allo asalaamaaleykum maaleykum salaam sista ñu ngi lay nuyu wa Ousmane ma ngi leen di nuyu di nuyu ñëpp di nuyu intervenant yi ak euh, ñuy déglu wa ñu ngi lay nuyu ah di wax ni Sénégal euh, pour mu défaro mi ngi dépendre ci ñun ak ci suñuy xalaat ak suñuy waxine te muy dëgg

parce que bu un sénégalais xalaatee ni tubaab bi mën na ñëw bees armée mën na ñëw ci ay màggal di fa dugg ak teneem ba pare mu ni loolu amul problème man loolu vraiment dafa garaaw. catastrophe la. parce que dañu am pétrole. dëgg la. dañu am gaas dëgg la. dañu am or. dëgg la. dañu am zircon. dëgg la. dañu am jën yi ci géej dañu am ressource yi nga xamee ni mooy dund te moom te dañ ci war a dund te ñun malheureusement ñun sénégalais yi moom loolu ñun amuñu ci dund. dëgg la. dix pour cent yi ñu wax ni moom lañ ci am bu fekkonte ni dix pour cent yi ñëwoon na ci ñun dana feeñ ci ñun kon dinañu am sax machine radiothérapie. dëgg la. kon taalibe tey du yalwaan ça veut dire même dix pour cent yooyu ay kàcc la ñun amuñu dix pour cent amuñu sax un pour cent. mooy dëgg. kon bu fekkente sénégalais mi ngi wax ni tubaab yi ñëw dugg Touba di fa di joxe loxo wala que pas un problème que loolu mosoon na am mais loolu moom moo gën a grave ci doomu aadama nu muy man foogoon naa ak 2019 actuellement un sénégalais amul góor amul jigéen na ni la France est notre ennemi.

li ma gën a métti daal ñun ñi nga xam ne ñoo mom Sénégal mhm. nañu delloosiwaat suñu xel nañu xam France moy suñu ennemi te yamal ci ñun mooy suñu ennemi moy ennemi Mali moy ennemi Côte d'Ivoire moy ennemi Gabon moy ennemi Guinée moy ennemi Togo Cameroun fépp moy suñu ennemi parce que on a les mêmes problèmes. lolu moy deug Tounkara su so la nee dialogue bi taxaw Sénégal dialogue bi France moko imposer les les les pays les quatorze pays pour ñu def dialogue pour problème du am su ko defee parce que réseaux sociaux yi mo len sonal bu ma la waxé ni la France mo créé dialogue bi doo ma gëm. mais ñun gëm nañ la ñun xam nañ lolu on la connaît wa dialogue bi c'est parce que réseaux yi day am ben pression pression mooy jeunesse bi ñi ngi xataraayu te xataraayu bu dafay ragal ñu déggoo.

yaa ngi dégg bu baax. léegi nag dafa am loo xamee ni côté taalibe yi suñu problème lépp c'est l'état te sëriñu daara boobu dañ ko war a parce que ban lan la ak gouvernement Sénégal am pour protéger les enfants et les femmes ba lan la ñu am parce que y a pas longtemps CNN def na benn euh, defna ben euh, rapport ci les talibés de chez nous allô. maa lay très bien il y a pas longtemps defna ben euh, Madame enquête naka la talibé du Sénégal té il y a deux ans et demi amna xaliss bu bari bo xamné américain américains yi joxe woon nañ ko pour ñu arrêter talibé ci Sénégal. bi gouvernement bi jógoon di ramasse taalibe yi ak lafañ yeeg yooyu loolu deful sax un mois te alal bu bari lañ fa dugal pare. dañoo sàcc xaalis bi comme ni ñuy def toujours. fii lañ leen ko joxe woon fii lañ leen ko joxe woon Washington. kon tey jii nii ñun les femmes jigéen ñi ñoo war a jóg takk seen ligg ni bëggatuñu affaire taalibe te man li ma jaaxal lépp lu nga xamee ne tey mi ngi génn senegal mi ngi am Sénégal di dugal xaalis rek même weccet. da ngay ni ñiy enquêté wekket bi ñooy génn ubbi seen gémmiñ di wax. dañuy protéger mais booy jël wekket waxal. vas-y vas-y. booy jël wekket mais jël ko ci mag. jël ko ci sénégalais bi nga xamee ni moom dafa bëgg a nekk esclave joxe boppam di joxe weket jël ko ci kooku. mais bu ko jël ci moomu ni yàlla parce que suñu état dafa war a protéger les enfants su fekkente ni état bi dafa bañ a protéger jigéen ñi nga xam ne ñooy ëmb neuf mois ñu am jom jóg xeex lii sama moroomi jigéen ñi laay waxal jigéen ñi ñooy ëmb neuf mois te xam nañu jur nu mu méttee nampal nu mu méttee mais li gën a garaaw mooy suñu dëkk dañoo fab jigéen ñi paralyser leen interdire leen wax amu leen baat waru len wax waru len dogal da ngeen di toog ca gannaaw du tey cere yépp su ko defee ñu jël seen doom yi di leen alak te lu yëpp di ko waral mooy ignorance bi ci suñu dëkk manque d'éducation manque d'éducation bi ci suñu dëkk parce que bu dëkk ba ñëpp jàngoon jàng ñaar jàng euh, arabe jàng école xam lan mooy àddina am savoir vivre maltraitance bi am ci suñu dëkk du fa am lii moom ndax France xam moo tax muy rey éducation bi Sénégal bañ éducation bi dox parce que bu éducation bi doxee nit ngi dañuy civiliser te nit ñi bu ñu civiliser yenn sauvagerie dootul am suñu dëkk jëng xale c'est sauvagerie la abuse la esclavage la affaire la bu fekkente ni yow mi nga xamee ni yow yaa may dëkk te dañ laa jéngoon yow wala ñu jéng sa maam mu nekk la ba tax yow da ngaa war a jéng mooy bëgguloo Sénégal développé soo taxawee nag da bëgg Sénégal développé waxoo dëkk c'est pas vrai am samay wax du neex parce que samay wax du ma ko yërëm de. ah mais loolu mooy démocratie fi may wax ak yow nii. dama lay déglu loo mën a loo wax ak lu mu mën a doon ak lu ma ci mën a xalaat dinaa ko déglu. léegi affaire courant bi léegi affaire courant bi nag. ma ne affaire courant bi comme Sénégal dafa bare ay défaillants dafa bare ay défaillants ñoo xamee ni. luy yëngu ci Sénégal lu mu metti du duñu génn yàlla moo indi problème courant bi pour nattu leen pour ñu génn léegi nag génn tay bi nii daf dañ ko précipité nañu bàyyi vendredi prochain ñu dóoraa beneen génn ci diggante bi ñoom ñoo ñooy nga xam ne de noppi a la ñuy def ñëpp jot seen courant coow li dina gën a bari muy benn ñaareel ba fam femme bi wax sank mu ni facture ci Facebook man dama ci and na ñepp génne sen facture ci Facebook kuko am nang ci def vidéo nang ko filmer ko Facebook lépp kenn ku ci nek ñu xam ñaata nga fay parce que lolu c'est ay preuves la bu boobaa génn day neex may wax ak wa ar li ñu bok di leen jaajëfal di len wax ni len sen génn da ngeen ko précipité parce que fi ñu ak fi ñu mais c'est mieux que rien

parce que su paree nii yokk na essence yokk na fer yokk na lii te essence Amérique deux dollars dix huit mooy seen trois litres et demi parce que ñoom seen pétrole ak bi ñuy jëlee ci àddina bi dañuy ñëw yombalal seen doomu dëkk deux dollars dix huit laa gis tey deux dollars dix huit mooy trois litres et demi d' essence Sénégal benn litre ñaata lay jar ci dëkk boo xamee ni seize millions la dëkk boo xamee ni am nañu pétrole dëkk boo xam ne am nañu gaz. Aliou Sadio tëb suñu six mille milliards mais ñoom ñi mais ku ñu yàpp bu fekkente ni Sénégal dafa am problème mu xaalis six mille milliards bi mag euh, Aliou yore na ko jël ko conventionné courant bi dañ ko dugal si Sénégal wàññi électricité bi te aar nañu bokk nañu préparé beneen marche le temps facture yu gën la parce que ñu bare kat bu ñu seen facture lañu bi incha allah. bu Macky Sall delluwul ginnaaw dañuy dox jëmale palais. mani vendredi bii woo vendredi prochain woo vendredi dañ ko commencé te xoolal li ñuy yokk Sénégal yëpp merde la pompiers yi la ñuy boole Aliou Sall suñu six mille milliards prison ba tey courant bi ñu yokk ceeb bi lu bon li nekk ci dëkk bi góor jigéen yi torturer xale yi lépp la ñuy boolee ndoo def ko marche parce que amul lii rek la ñuy marche déedéet

sëriñ bu fi nag di wax naan taalibe di taalibe laa sa intérêt ngay xool ñun faale wuñu la demal ëmb dañoo bëgg yow sëriñ boobu nga ëmb neuf mois ñu xool demal nga jur demal nga matu nga wasin nga xool lan mooy jur kon jigéen ñi nañu am jom am fulla am fayda tax affaire taalibe jóge ci Sénégal nañu ubbi seen gémmiñ

kenn xamul lu mu mën a doon ëllëg ndax Macky sàll ba yaayam da daan jaay gerte baayam di daggi fleur mu nekk ci ay jafe-jafe yi judd ci ay jafe-jafe màgg ci ay jafe-jafe mu do mu jékki-jékki doon président de la république donc yaakaar naa ne buñ ko joxee respect war nañoo mën a jox taalibe yi tamit respect parce que kenn xamul lu ëllëg di jur. ma ne. Mhm. xam nga am xolu gaana soxol iñaan weesuwul nga ni dañ laa jéngoon yow taalibe bi tey dañ ko war a jéng deux mille dix am ñu am gaz am pétrole am oil moo Dubaay war a rafet war a développé teewul ay daara yoo xam ne dafay rafet xale yi nekk ci biir nekk ci jàmm di jàng en même temps di jàngaale abaat ak école di am éducation dañuy lekk ba suur dara sangu ba set ñu naan xale dañ leen a war a jéng Iran ndaw bu ñu yeewul xale bi buñ ko yeewee dégg nga buñ ko yeewulee ëllëg dañ ko yew mais kenn développe ba tey dañoo dañoo bëgg développe mënuñu développé te defaruñu suñu doom mënuñu développé te respecté wuñu les animaux fas yi dañ leen di ci mbedd mi di leen yebal charge boo xamee ni fas yi àndal ñu ko ñuy daaxaan mais suñu dëkk dëkku sauvagerie la l' esclavage ak l' exploitation c' est entre nous Sénégal c' est entre nous mais Sénégal lépp lu gën a bon ci biir Sénégal Sénégal amul amet Sénégal amul kilifa Sénégal amul yërmande balaa may dee ñu ne ay quatre-vingt-dix-sept musulman ñoo fa nekk yan façon musulman yan façon musulman ñoo nekk Sénégal musulman alxuraan waxul sauvage alxuraan dafa noble alxuraan daf lay teg ci yoon alxuraan dafa bëgg lu set alxuraan dafa bëgg lu sell alxuraan dëgg lu set a tax balaa ngay julli mun la demal jàpp kon xale bi nga xam ne ni moom ñu yàlla la yàlla sàkk ko mu mën a nekk lu ne ëllëg waroo dugal ci moom ñàkk jom waroo toj xolam boobu bàyyi personnalité nga dindi ko bu ëllëgee dóorkatu marto lay doon day ñàkk jom moo tax senegal ay kilifa ñoom di nekk di dóor marto di fenn àcc di neefare rek parce que xam nga lu tax seen personnalité ba ñu nekkee xale lañ ko dindi bu ngeen yaakaaree ni lii mooy éduquer xale ndax seen bopp lii day ñàkkal jom doomu aadama. nit ki mën nga ko jàngal ba mu wàcc alxuraan doon dara ëllëg mu dese jomam dese personnalité am xam diineem xam lépp am savoir fi xam fu muy teg tànkam waaw waaye tey nit ki di ko yalwaan loo muy taxawaale ci mbedd yi moo ñi di ko tëdde mu koy marqué ci addinaam di yàq addinaam quel genre de pays sauvagerie on est dans la forêt ou où ci gaynde yi la ñu nekk wala ci ci ci nit ñi ñu nekk góor jigéen ñi jaar fee di dof doflu dégg nga Sénégal ñii di defar ay phobie ñii di fen ñii di jël alalu askan yi ku feebar boo faju ñii di def lu kenn xamoo amatoo koo wóolu fukki nit fukki sénégalais yoo teg juróom-ñett yëpp turiyaa lañu ñaar yi normal ñaar. te li waral mooy gouvernement bu bon. benn moo ci normal. yow te li waral mooy gouvernement bu bon parce que suñu état moo baaxul nañu dem sauver Sénégal nañ sauver Sénégal ah, parce que ay nit ñoo nekk ci biir Sénégal. te li fa nekk dafa garaaw Sénégal amul sécurité Sénégal drogue bi bu ñu paree ci drogue bi dem ci yée bu ñu paree dem ci taalibe yi nga xam ne ñu ngi leen di tëddee tëddee laa wax de tëddee ay booy taalibe dañu leen di tëddee gees loo leen jàngal leen gees bu ñu paree nekk ay agresseur fan la jógee lépp ci yoonu sëriñ ba la jógee am na nag sëriñ yu daara yu baax yu nekk ci biir dëkk ba yuy góorgóorlu mais boo dee taxee ñuy boo déggee ñuy wax majorité bee tax ñuy wax c'est la majorité.

c'était pour vous faire savoir que inshallah allahu rabbi vendredi bii ba légui dañuy woté waa aar li ñu bokk ñu ngi woté sénégalais yaa ngi pour encore affaire facture yi ba pour sauvagerie bi nga xamné mom lañu la ñu bëgg a sénégalais yi euh, aduna bi sénégalais yi dañ ko bañ donc sénégalais yi dañ ko donc ñu ngi né képp ko xamné am nga problème courant nga jokkoo ak waa nga jokkoo ak citoyen sénégalais yooyu nga xamné ñoo woté pour vendredi inshallah rabbi ñu marche dem palais pour wax ak est nga président bandit de la république voilà une seconde jël grand Alain Djemme, Alain Djemme né won na ma woko Alain euh jël na la ma ngi doon woté ko gis jël n'a sax numéro bi ah, <laughs> j'ai même pris le numéro mais lan xew ci bi ba voilà mais vas-y ñu ngi lay ah non gis naa ni appels yi dañoo xaw a bëri non non bon maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ah donc euh, pour yokk ci xel rek xam nga mbir bi moom waxtaan la on est tous en famille man yaakaar naa ni kenn waru fi xuloo. déedéet waaw man euh, su ma woo su ma woote bi mooy wax dëgg yàlla bokkuñu diine. bokkuñu diine man euh, catholique la. c'est normal mais man nee naa tamit bon bu ma gisee lu nga xamante ne war naa ci intervenir du parce damay euh, respecté su ma diine bañ a respecté diine jàmbur man yaakaar naa ñun Sénégal ñun ñëpp a yem ñun ñëpp a bokk benn diine bi sax boo xoolee ba xool. mais man yaakaar naa ni il faut tamit il faut tamit mhm. euh, man mënuma condamner état bi surtout ci xale taalibe mhm. parce que man nee du état bi mooy diine bi. Mhm. diine bi mooy ñan. mooy yéen yi nga xamante ne ay musulman ngeen te ngeen am ñu nga xamante ne ñoo leen jiite. dëgg la ñun boo gisee suñu diine. Mhm. xam ngeen am nañu lu ñuy naan séminaire xale yi fu ñu dem jàng ba ñu nekk labé donc yooyu yëpp yaakaar naa organisation la mhm. donc tey man bu ma gisee problème mu talibé yi mhm. dafa dafa des ci organisation parce que man nee naa affaire euh, daara yi ñuy wax noonu c'est clandestin affaire clandestine la à la fin déclaré wuñu ko fenn mais tey bu doon école la bu nga xamante ne dañ ko tabax ñu xam ni xale yi dañ fiy ñëw nekk fi di fi dund Mmh. dinañ leen defal ay salle yi nga xamantene ne fu mëna jang mmh. ay terrain yi nga xam dañ fu mëna dem football. Mmh. ay jardin yi nga xamantene sax dinañu jang lu arroser arrosé defar ay jardin. jëlu ay ay affaire comme séminaire duñuy ñuy ni boo leen tay tey short am nañu fu ñu naan séminaire Saint-Louis bo leen demee Sébikotane. am na fu ñu naan ay séminaire donc man yaakaar naa ni organisation boobu xëy na la état bi waroon mun a jël pour mu dimbale religion musulmane. au moins ñu dépasser lii parce que lii lu ñu war a dépassé la. dëgg la. parce que man en d' accord ma man maa ngi nii mën naa ne suma doom tey laa doog génne hôpital. Mm-hmm. toog naa presque neuf jours hôpital. moo tax jamono ji yëpp kenn du ma gis sax ci laay fii mais pour vous dire que tey xoolal mm. amin bu ma xoolee tey suma doom ma gis nit ku ku jël ay weñ takk tànk yi ngir lam da ko bëgg a jàng diine mm-hmm. mais loolu man tey bu dee bëgg naa dëgg dëgg dëgg suma doom taalibe boobu déggal sëriñ boobu xaaruma sax man naan police dafay ñëw ci moom. dëgg la man donc loolu à voilà du ñu juboo man yaakaar naa lu leen di àndil juboo seen biir diggante seen biir diine. Mhm. il faut que ngeen toog waxtaan. dëgg la affaire daa daara yi ñu xool naka lañ koy organiser du ko nekk bu la neexee rek nga def sa daara jëlay doomu jàmbur ñuy dem di yelwaan di lay àndil loolu ngay dund. mais finalement ci ban réew bi la nekk. Mhm. xool leen bitim réew ñun Europe lañu ñu nekk. wala yéen yaa ngi di Amérique. mais lii amu fii. man tey bu ma defee suma kër sax lu nga xamante du noonu assistance sociale suba suba suba mu ñëw jël suma doom yëpp dem yoonam. rapidement donc loolu est-ce que loolu am na Afrique wala amu fa parce que lan dañoo amul règlement man yaakaar naa ni organisation dafa baax tamit ci réew man état bi mom xam ngeen ni ñooñu mom man waxuma seen mbir. ñooñu mom waxuma seen mbir. lamb golo amul règlement grand lamb golo lamb ay golo yu bëre. voilà amul règlement il faut que ñu organiser wu ba xalé yi. talibé dootul amati ci mbedd. ñun tay gisu leen benn xale bu jéem séminaire naan dafay dem di yelwaan. loolu amul pourtant man def naa ay reportage dem naa séminaire Saint-Louis bu Ziguinchor def fa reportage mais luñ ma wax ci biir directeur bi ci boppam dama toog ma def benn genre émission ak moom mais lu ma wax dafa jiggi dayoo maa ngi gis sax école ba ngi commencé di maquette parce que école bi duré na euh, bientôt 100 ans donc loolu war nañ ko xoolaat war nañ ko défarat xam nga grand grand man mhm. école mission man école mission la jangé man. école mission catholique bu Saint-Joseph bu Vélingara fa laa jàngee CI ba CM2. oui mais euh, gis na li ngay wax mais ñaari organisation yoyu de c'est totalement différent même ci manière bi nga xamné mom lañ leen financer par par exemple tey euh, à l'étranger euh, boo xoolee euh, manam religion yi légui l'islam bari l'Église la l'islam bari ay mais avant c'était par exemple 80 à 20% l'église peut-être islam yek d'une manière où sax tay nga mën wax ay waxu euh, euh, nit yu ko problème bi ñu am par contre li ni ko waxé moy on est dans un gouvernement qui est médiocre on est dans un pays où la médiocrité est célébrée mhm. ñun suñu mhm. dëkk la médiocrité est célébrée c'est ça notre grand problème lolu ci la parce que quand bu ñuy sàcc ni loolu yëpp mooy andi pénalité bi ba duñu mëna a dara effectivement waaye faux billets yi ñuy def non Ousmane Sonko la motax Ousmane Sonko dem assemblée nationale de len di wañi comme nu mu def ni tay da wax parce que wóor na ko ni ani drogue bu ñuy naan gars yaa ngi koy jàpp kenn musul gis drogue bu ñu def donc drogue fu fan lañ ko yóbbu am na ku ko jël dañ ko sàcc dañ ko sàcc ani phobie amul fenn fu ñu bës gis phobie yaa ngi nii dañu naan ay milliards Bougazel yaa ngi nii mu ñu ne xaw ma trente et quelques milliards animu kenn gisu ko voyez donc il faut que ñu jéem a suñu réew bu dee bëgg nañu jub bu dee bëgg nañu suñu réew baax man nee naa tubaab bi mënuñu mel ak ñoom mais il faut ñu roy leen. roy leen ci lan ci lu baax. Mm. il faut ñu yar ci suñuy doom ci lu nga xamante ne ci respect man yaakaar naa ni boo juree sa doom même boo ko jurul am na ñu nga xamante ne jur nañu mais tey génn nañu àdduna mais am na ñu sa sa sama gaa fi wala sa sa leneen ngi mais il faut que xale yi nekk ci condition yu baax condition bu baax mooy lan daara yi il faut que ñu légaliser. du ku nekk boo la neexee nga jël sa caabi ubbi nga jël sa ñaari néeg xale yi tëdd fii te xale yi du ñu tëdd condition bu baax feebar leen ci fekk mais loolu du ñu mën a dem du ñu mën a dem man yaakaar ni man tey de tey bu ma nekkoon président au Sénégal tey tey tey ci lu ma njëkk a lay nekk xaw ma ndax musulman yi dinañ ma dàq wala dinañ ma contre mais dinaa éliminer loolu parce que lu ñu il faut nga jël décision parce que nit ñi boo dee da ngay jëf ay yow mi président yaa war a gis nga lii ba su tey bëgg naa mu jeex Ken dootul ubati dara clandestinement nga jël xalé yi ubbi sa caabi ñi ñi ñew andi say say doom xalé dem yelwat gis nga lolu bu ñu président bu nga xamantene da ci mais lolu taf taf affaire bi jeex Ousmane Sonko mais man suma xarit la pour te dire que Ousmane Sonko bo démé kërëm ci kaw amna talib amna amna serigne ba mo ñew di jangal doomam comme mom da ko wax motax man leen ko mais condition bu rafet la nekk exactement donc lutax xale yi war a nekk ci mbedd di yelwaan man loolu ànduma ci ànduma ci de yelwaan lu tax xale war a yelwaan finalement loolu business la amul sens après lan la seen diine la ñuy tilimal man motax mané tay xama intervenir. xëy na wax dina am ñu mu neexul. mais suma gis-gis la wax. voilà loolu du du pour manquer respect. mais pour ñu mën organiser wu ba xalé vraiment nek ci jamm parce que bëgg na doomu jàmbur yi war mëna nek ci jamm comme su may doom ñu nekkee ci jamm voilà Ousmane je te remercie vraiment. merci rafet lu nañu sa intervention merci beaucoup donc kooku c'était grand Alain Diémé ko xamné dama koy suivre bu baax comme nim ko waxé rek euh nit. Euh, du religion ngeen di bokk pour ngeen mën a doon benn religion manam ñi gëm yalla nee nañ leen montre yi bax yëpp ñoo bokk euh toutes les religions yi nga xamné ñi gëm yëpp même yalla bi lañuy jaamu ñi gëmul nak gëmuñu mais ñi gëm yëpp ben yalla bi lañuy jaamu donc ce que le frère vient de dire c'est exactement des vérités lolu moy dëgg manam ñun nak liñu liñu sonal Sénégal c'est du n'importe quoi moy dañu nek ci càccum xaalis bu metti nekk ci luubalu alal bu metti nekk ci njaayum drogue bu metti xam nga fan yëpp maa ngi leen di laam-laame Cheikh Kanté nangu leen maa déglu di ngeen ko dégg nag ci kanam tuuti di ngeen ko dégg ci kanam tuuti Cheikh Kanté Cheikh Kanté il fait parmi les plus grands criminels au monde cinq minutes je bouge five minutes five minutes ah huh? okay so back up let me get hello xam nga dafa am loo xam ne grand bi wax na ko léegi mu am importance te ñun ñëpp ñu man cee njariñu c'est important ñun ñëpp ñu man cee njariñu ce que le frère a dit c'est extrêmement important ngeen xam ko waa jéggal leen ma grand ma jël euh, intervenant bi asalaamaaleykum waaw salaamaaleykum Ousmane man la waat euh, non amul amul problème voilà jël naa la bismillah waaw c'était pour répondre que eh, maa ngi nuyu yaay astu maa ngi koy suivre live am yëpp laay suivre ma macha allah. yal na ko yàlla fay. parce que yomb li muy def Sénégal la koy defal. dëgg la não na ko yàlla fay parce que si xeex bi nag jigéen ñi dañ si war a nekk comme moom ni mu si nekkee dafa normal. loolu mooy dëgg. ñu ngi koy ziar bu baax di rafetlu intervention. dëgg la. waaw ah, donc euh, ma doon ñëwaat encore si sunu frère bi nga xamante ne mu ngi doon wax que ne. Mhm. Euh, allo. waaw waaw maa ngi lay déglu ñu ngi lay déglu. Euh, sunu frère bi doon wax que ne c'est normal pour yokk courant bi. gis nga mhm. loolu. Mhm. lavage de cerveau la. waaw. te ñun waruñu koo nangu. xam nga lu tax waruñu koo nangu. gis nga état bu normal dafay subventionné. mooy dafay am benn montant boo xamante ne. Mhm. daf ko war a dugal ci activité bi. dëgg la. muy ci ndox mi muy ci courant bi. si réew bu pauvre surtout. Mhm. voilà nit li nga xamante ne mooy nécessité li nga xamante ne nit ki euh, da koy soxla pour dund. Mhm. état da ci war a def loxoom. muy ndox mi muy courant bi. ak yenn aliment yi nga xamante ne comme ceeb diwlin loolu état da ko war di subventionné di ci def loxoom. Mhm. gën a wala du dëgg. te muy dëgg bu wér. kon tey jii nii lan moo waral état bi mu toogoon bañ koy voteel mu ne woon day wàccee lépp mu wàccee lépp ba ñëpp voteel ko pare mu ne da koy yéegaat loolu mooy dafay dindi subvention bi. gis nga médicament garab yi nga xamante ne moom la nit ñi di gën a jënd. Mhm. état da koy subventionné mooy état dafa am benn montant boo xamante ne da ko si def. Mhm. suy jar mille francs mu def téeméer wala mu def sept cent. ci pour néew ji a ji sax pour ñi amul njëg li quoi. ñëpp pour ñëpp man si jot. Mhm. courant bi loolu la war a def ndox mi loolu la war a def garab yi loolu la war a def gis nga pharmacie bi dafa am ay garab yoo xamante ne comme garabu diabétique comme garab yi nga xamante ne mooy euh, ñi am tension. Mhm. genre garab yooyu état da si def loxoom bu baax da koy subventionné ba ay cinquante pour cent ba soixante dix pour cent. Mhm. pour que prix garab gi mën a wàcc nit ki nga xamante ne dafa feebar loxoom man si jot. kon bu waxee ne courant bi euh, dafay day yokk parce que fépp dafa yokk parce que du du du Sénégal moom moom moo koy euh, moom moo koy yokk wala moom moo koy wàcc man loolu je suis pas d'accord parce que gis naa ko euh, ministre bi la xaw ma. sax xaw ma leen bu baax seen ministre yi. Mhm. ministre bi nga xamante ne moom moo doon expliquer affaire kii lu mu njëkk wax naan France day yokk xaw ma ba pays Ghana day yokk lu mu ñuy waxee yeneen pays di yok sunu yoon nekkul si yeneen pays yooyu di yokk ñun sunu réew la ñu am sunu réew dafa war a subventionné. non yeneen réew yooyu sax dañu am seen koom-koom tamit day yokk seen am-am di yokku seeni alal di yokku ah. mais ñun senegal ñoom ñu ngi sàcc ñu ngi sàcc alal bi ñu ngi koy luubal président président baa ngi gracier ay jaaykatu drogue mu ne dañoo da daa juum mu ne dañ kone ne mu signé rek mu signé. Ousmane li ci Ousmane li ci am mooy état bi dañoo amatul xaalis xaalis bi sàkkal nañ ko pexe gis nga ni ko Sonko doon waxee. ne sénégalais yi di ngeen gis loolu moom la nekk di gis te gis nga fi mu nekk nii ñoom bu fekkee ne leer na leen ne ñun ñu ngi gis dañuy commencé dañuy def lavage de cerveau dañuy wax naan ay France yokk na suñu yoon nekku ci gis nga France li muy subvention kenn mënu la wax nu mu toll. ah mais genn wàllu sénégalais yi nekk mais Mbayang xam nga lii lii du yabeel sax mais genn wàllu suñu mbokk yi nekk sax France tey. mais ci ci ay cas sociaux la ñu nekk am na ci ñoo xam ne tey ñu bari jaral na leen ñu bañ a liggéey nañu wasin ay doom rek yor leen ci kër yi ñu leen di fay ay koppar yu bari ñu leen di fay mais loolu loolu amul Sénégal Sénégal boo juree doom rek Sénégal boo juree doom rek commencé misère Sénégal boo juree doom nga commencé jooy boo juree doom nga commencé souffrir nga commencé jooy ne tey ma dee parce que xam nga ne say problème yokk na mais fii mais Amérique wala wala euh, France bo juré dom té do liggéey da ngay né alhamdoulillah rabbil alamin dinañ la fay dom joju tamit. xam nga luñ la ko dé parce que dañuy dañuy préserver. xalé bi eh, eh, la ñuy bañ. mu taxawal exactement xalé ah xalé mhm. am nañ ciy juddo dé mais kenn xamul fu muy mujj ak ku muy jariñ. exactement dëgg wala du dëgg. exactement moo tax ñu koy préserver. exactement. ok dañ koy préserver cet enfant là motax ñun. am na loo xamante ne ñoom daan nañ ko def am na yoo xamante ne daan nañ ko def di ko wax bu dara amee ñu génn def ñu lavage de cerveau di ñu wax loo xamante ne ay xaw ma na sax a xandang la ñuy wax xaw ma. Mm-hmm. loo xam ne teguwul fenn loolu moo fi jeex nañu subventionner les nécessités li nga xamante ni moom la nit ñi gën a soxla nañ ko subventionner te loolu muy wax noonu di wax naan tey jii mu yokk lii bu ëllëgee mu yokk lële ba muy yokk essence bi lu ñu wax dafa ne au niveau mondial xaw ma lan États-Unis yokk nañ xaw ma ñan lañ yokk nañ léegi ñu ngi yokk courant bi bëgg naan France yokk nañ suñu yoon nekku si nañu subventionné lépp loolu moom mooy dëgg bu dee ne lekk nañ xaas bi fañ ko denc nañ ko fa jëli gis nga les paradis fiscaux boo fa xësee ba denc alal doo ko jëlagum léegi de parce que dafa am délai du da dem di fa jël tey bu subaa nga jël fa dara dafa am délai de gis nga xaalis boobu nga xam te génne nañ ko Sénégal ba pare. turu lay def Sénégal te ñun ñu ngi koy gis dañ koy gis nii jaxaran léegi lu ñu bëgg. ñu ngi déglu Ousmane maa ngi lay ziar bu wér. maa ngi lay déglu baax na. ma ne maa ngi lay ziar bu wér maa ngi lay live bi gudd na te bëgguma a yàgg encore. non vraiment c'est c'est gis nga même nit ñaa ngi bind ci commentaire yi ñu ne du ñu doylu du ñu doylu ci sa ay intervention parce que vraiment li ngay wax dafa dëggu. merci beaucoup merci ñu ngi lay jaajëfal merci sister bu beneen voilà donc euh, gis nga comme li sœur bi doon wax léegi euh, tey boo xoolee ci Sénégal déjà nga jël kaawu rek Macky Sall ak waajooju mu euh, nu mu jéggaloon nu mu tudd mooy ki mu gracier woon mu ne dañ ko ne rek signeel maanaam dañ ko indil papier de grâce rek ne ko gracier kii mu gracier ko xam nga Sénégal dafa am loo xam ne dañ koy nëbb nit ñi xam nga waajooju si vous comprenez bien c'est un trafiquant de drogue bu ma nee drogue c'est pas du médicament rek mais waa ji day tra day trafiquer drogue day trafiquer médicament ba ci affaire faux billets yi waajooju setu ci yéen a ngi fàttaliku waa ji may wax waa ji xaal pulaar la ngeen jéggal ma malgré ni ma koy waxee mooy waa ji ñu jéggaloon ñi gi ñu gracier woon euh, j'arrive pas à, appeler. Maintenant, tu peux appeler parce qu'il n'y a personne sur la ligne. C'est Ousmane Tunkara. Tu peux aller.